Frères et sœurs en la foi, la prise de conscience des musulmans est d'autant plus cruciale que dans pas mal de pays, l'islam n'est pas la bienvenue. Les musulmans qui veulent pratiquer leur religion dans la paix et le respect de la liberté de l'autre sont marginalisés, voire victimes d'exclusion. L'islam est érigé en religion de terreur Et certaines puissances se sont liguées pour, pour le combattre d'une manière ou d'une autre. Afin d'atteindre cette unité, il est indispensable que les musulmans soient comme un seul corps, dont les souffrances d'une de ses parties sont ressenties par les autres parties. Et l'unité spirituelle ne peut se concevoir que sur des bases communes et claires, à savoir une fois unique et authentique, des références et des modèles uniques de comportement et de croyance. Ce n'est que par ce moyen que nous pourrons atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et être préservés des ruses et stratagèmes de Satan. Les musulmans doivent dès lors revisiter les enseignements de la sunna et les mettre en pratique afin de montrer le véritable le, la véritable image de notre religion, pleine de paix, d'ouverture, de tolérance et respect envers les autres cultes. Une religion du juste milieu, sans laxisme ni extrémisme. Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de vrais musulmans, avec une croyance authentique et ferme, et dont le comportement et exemplaire. aqulu ma tasma'un وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم ارفع عنا الوباء allahuma arfa anna alwabaa walzina walriba walzalazil walmixana wa suu alfitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hada xaasa wa an saa'iri bilaadi almuslimina aama allahuma aminna fi awtaanina wa tawallana wa anta raadin anna واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim allahuma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha aqulu ma tasmacuun wa astaghfiru allah li wa lakum wa li saa'iri almuslimin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bonne fête à tout le monde

ça va. gis nañ ne tey woote ngeen julli askan ñu ci bari ñu ngi xaar suba ñu bëggoon ci am say hmm? kàddu. ne askan wi ñu bari ñu ngi julli suba. Mhm. yéen ngeen sukkandiku tey ci euh, message yu sallallahu alayhi wa sallam. julli tey ñu bëggoon si nga indi ci ay leeral. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al amin wa alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi din amma baad ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp fu ñu mënta nag ci Sénégal ak ci bitim réew euh, di leen ndokkeel ci bés bu màgg bi di bésu tabaski muy bés boo xam ne bu am solo la euh, ci jullit ñi mu nekk shaaira min shaairil islam mu nekk benn symbole ci symbolul islam yi euh, feetu tabaski li ci gën a siiw mooy moom mooy lendemain arafa donte nag am na wuute ci borom xam-xam yi ndax dañuy wax ne arafa euh, ñaari xaaj la dafa am makaan ak zamaan ñoo xam ne dañu ko tuddee Euh, am na jamono am na place jamono ji mooy neuvième jour ci weeru weer wi ñu nekk di weeru tabaski euh, place bi mooy place bañ koy defee ci Arafa doonte boroom xam-xam yi wute nañ ci ci ñoo xam ne dañoo nekk ci yeneen contre contrée euh, wuute yooyu nag dafa nekk ci wuute yoo xam ne ci li ñu tuddee waxdatul mataali wala ixtilaaful mataali di considéré ñoo xam ne ñoom ñoo bokk sow jant ak bokkuñu sow jant euh, bu fekkente ne bakkan dugg ci euh, wuute yooyu moom amul benn problème incha allah mais bu dee bakkan dugg na ci moom yenn saa euh, dafay grave te jàpp naa ne yenn saa bakkan dina ci dugg ndax Sénégal Mauritanie Gambie Côte d'Ivoire Togo ñoom ñoo bokk benn place fii jant bi di sowee donc mënuñoo wuute li nga xamante ne moom mooy lu mel ni tabaski kon bu ñu demee ba ñu wuute rek kon yaa problème. ci kaw loolu est-ce que yaakaar nga ne waxtaan war na mun a am ba ñëpp mun a julleendoo ci benn bés. loolu mooy yoon waxtaan moo war a am du wax ne dinañ waxtaan ba dem ba dëppoo bay julleendoo benn bés mais bu ñu waxtaanee ba yenn divergence yi ñu lever ko bu ñu jullee tey ñeneen julli suba sax te ñu teg ko ci xam-xam yàlla dina nangul ñëpp. waaye waxtaan nag moom moo jiitu te buñ ko defee dinañ trouver ay solution li ñu mën a jàpp lu gën a rëy ci xutba bi mooy insister ci li ñuy tuddee tawxiid maanaam wéetal yàlla ndaw tawxiid moom mooy sookul lislaam moom mooy baasu lislaam ndax li ñuy célébrer tey di ko